哥拉。

Euh, ñoo ngi remercier aussi auditeurs yi si feedback yi ñuy jot like suñu euh, euh, show bi passé nga xam ne dañ ko def sur la dépigmentation jot nañ ay feedback yu bari ñoo ngi sant éditeurs yëpp si seen feedback yi am na si ñoo xam ne sax ay vidéo lañ ñu envoyé pour dëggal li ñu doon waak si dépigmentation auditeurs yooyu yëpp ñoo ngi leen remercier si seen participation parce que participation yooyu moo ñuy tax ñun ñuy jóg di gën a def ay research pour andil nit ñi ay information yo xam c'est tout simplement pour ñu am awareness pour le réveil des consciences bi nga xam nak dafa jot fi mu nek ni jot na fi mu nekk pour ñu yewu ñun wa Sénégal jot na pour ñu yewu pour ñu utiliser suñu mind ànd liggéey liggéey bu rafet ci suñu dëkk bi pour mu gëna avancer suñu euh, show bu tay bi nak ñu ngi ko def ci islam et la protection de l'environnement muy thème bu am solo muy thème bu bu jara waxtaane ba nga xam ne bëgg naa bépp sénégalais yaa nun yàlla dimbali ba sénégalais yépp man si jot ñu ñaan aussi bépp auditeur ba nga xam ne am nga loo si yokk ñoo ngi lay ñaan nga dugg si bi xool loo si yokk parce que lii yépp waxtaan la comme li ma wax laa faa dernière rek man show bi dama koy host mais sama idée ak ah, idée keneen laa bëgg mu ñëw comme ça ñun ñëpp ñu boole suñuy idée ñun ñëpp ñu bokk ko islam et la protection de l'environnement tey dama am sama benn guest ka nga xam sama papa la sama ndijaay la sama mak la vraiment dëkk baax ni mu ñu koy wax Pape Gorgui Diop nga xam mu ngi Albuquerque fofu la nekk New Mexico tay ji mom lay andal ci show tay bi di ko remercier aussi ci tempsam bi mu arrêté liggéeyam bi mu arrêté pour une heure de temps bi pour waxtaan ak ñun si euh, islam et la euh, la protection de l'environnement li tax show bi am solo dafa am lu ñuy woowee environnemental psychologie mooy na nit ki fépp fu mu manti nekk rek milieu ba muy dundee dafay def effet si moom moo xam néeg bi nga nekk la moo xam douche bi ngay utiliser la moo xam waa waañ bi ngay utiliser la ba si suñuy digg kër ba si mbedd bi si biti ba si communauté bi ba si dund gi nga xam ne moo nekk si biir Sénégal ñun ñëpp daf ñuy affecté moom la ñuy wax personne place environnement mooy li nga xam ne à chaque fois boo jegee benn paa rek am na lu sa bët di gis mën na def effet soo si loolu la ñuy waxtaane tey manax paab góor gi jóob di ñaan yàlla suñu borom bi ñu commencé ko si bismillahi rahman rahim yeggale ko alhamdulilahi rabbil alamin euh, yàlla suñu borom nag def ñoo ñun jullit yi ñu am le coran ñuy wax le coran muy suñu guide te si alxuraan yàlla suñu borom bi wax na si environnement wax naa bugg alxuraan bi toutes les solutions du monde mu ngi foofu donc gëstu ko di si waxtaane kooku dafa am solo loolu nag mooy waxtaanu tey bi si l'islam lañu ko tubbee di si waxtaan bëgg ñun ñi participer aussi ku participer wul aussi yaa ngi ñuy déglu man nga ñu jox sa feedback après soo damay bàyyi Pape gi mu dugga nuyoonte ak suñu euh, auditeurs yépp ñu commencé waxtaan bi Pape Gorgui bisimilah. Euh, merci Dilek yaa ngi

Euh, <clears throat> fi mu gënu gën a sawar présenté sama bopp ba léegi mooy damay faral di wax ne euh, environnemental activiste la maanaam lépp li jëm ci environnement jëm naa ko xool nan lañ koy waxe ci wolof peut-être mooy jaww ji li ñu wër dëkkukaay yeeg li ñu wër euh, daf ma yàgg soxal mm-hmm. te ku fàttaliku

mais finalement wa pas ñëpp fekk nañ ñu activités. activité yoyu té buma ma woon ci activité yoyu aussi xëj na sama xel du ubbeeku ci euh, engagement activité communautaire Mais yàlla def ma dugg ci politique ba y a ci politique aussi ci même ligne bi euh, finalement nekk naa conseil municipal Paske mbiri bagne mou yag sol ak euh, mbiri Senegal, sotou si walu, set ak anveronman. Mhm. Mou la dougou mwen tibire euh, emisyon vi, di na prezante touti binet. Mhm. Binte, euh, defo limay wahrek, defo meni koui kou sol gal li papam, Adingom Adingom n'est enseignant bari. dee la à àdduna mais wa bari fàttewuñ ko parce que ci activité communautaire lañ ko gënoon a à l'enseignement. enseignement bi sama yu bari jàngal na aussi moo jëkk a président foyer de bari, bi foyer judo en 1961 et comme par hasard aussi top na ay tankam ba yalla def ma nek président foyer de bari de 87 à 92 euh ci en tout cas ay tankam yobbu ñu bari ñu fu sori ci jamono nit ku nekk aussi ci ni ko coran bi waxe war na xalaat ne bés bu nekk war na mën a génn àdduna donc ñaari si ñaari fànn da ngay yaakaar mën nga dund ila yow mi diina te ci kaw loolu war nga toppatoo sa environnement mais war nga yaakaar ne mën nga dee n'importe quand ci kaw loolu war nga préparer sa ëllëg bo boo fekk jee yàlla donc seen tey bi dañu nemmeeku ne Sénégal kenn du kenn du laam de maanaam que sénégalais yi ñu farlu lañu ci seenu wér-gu-yaram ñu farlu lañu aussi ci toppatoo seeni mën nañ ci joxe sax ay leçon waa addina bi yëpp ci wàllu set wérgu yaram ak ci wàllu toppatoo kër mais bu ñu génn cadre wérgu yaram sangu ak toppatoo sa bopp wala ak toppatoo sa kër dafa mel ni daal li xam ne ko bokk mooy dëkkukaay yi yitteeluñu dëkkukaay yi te war dëkkukaay yi loolu nag li ñuy dénk kilifa diine yi ci Sénégal parce que gis nañu ne julli àjjuma bu nekk li koy jiitu mooy xutba xutba dina enveloppé ponk yu bari yoo xam ne islam moo ko digtal mais xutba yi dañu mën dañu rafle ci wàllu gën a yéen ci lu jëm ci toppatoo environnement donc cadre bi ñu bëgg a ci émission bi mooy bu fekkente ne ñi wër iliman yi te ku nekk am rôle jouer ci jàkk yeeg juma yi ñu gën xalaat nan la xutba yooyu gën a ci wàllu yéen ak taxawal ay kuréel yoo xam ne war na mën dëkkukaay loolu mooy responsabilité individuelle ak collective yi xam ne en tout cas émission bi moom lay jéem a connu pour que lu jëm ci environnement mu bañ nekk ci xam ne daal dañ ci ràññee Sénégal ci fànn yu négatif Sénégal am na riir bien sûr ci fànn yu nekk mais ku dugg Sénégal lii lay jëkk frappé mooy en tout cas nous ñi ñàkk a toppatoowee euh, environnement bi donc du nekk émission boo xam ne euh, damay saytu ci Coran loolu ñu ngi koy jox donc euh, ñi xam ne ñooy kilifa Coran pour que loolu ñu mën ko gën intégrer ci activité mosquée yi ak activité grande mosquée yi

ci fànn yi médias sociaux yi pour que lépp lu ñuy xalaat ak lu ñuy posté mu nekk loo xam ne daf ñuy avancé on perd trop de temps ci weerante euh, en utilisant ce formidable outil que sont ces formidables outils que sont les médias sociaux donc tout le monde est interpellé pour que ñu jéem a xool nan la médias sociaux yi dimbalee si ay xalaat ak échange d'idées ci walu en eh, tout cas jël en charge la question de l'environnement gitu jërëjëf Gorges eh, introduction am na am na solo trop li ñuy wax ci environnement rek comme li nga introduire nii ne Sénégal ñin ñi ku nekk xam na ne sangu suba ñu bari dinañ sangu bëccëg gi sax ñen nañu ak suñuy communauté maanaam li ñuy wax euh, koñ bi waa koñ bi mm-hmm. a aussi dëkk bi si boppam parce que li ñuy wax rek bu benn communauté setee rek beneen ko bu ku nekk nekkee si sa communauté defaat ba mu set rek Sénégal gépp day setandoo mais ku nekk aussi da nga am responsabilité gouvernement bi am na responsabilité moo xam jumtukaay yi nit ñi di soxla pour defar dëkk bi la maire yi am nañu seen responsabilité député yi nekk député yi nekk Sénégal seen responsabilité sëriñ si nga xam ne ñoo nekk si Sénégal comme li nga wax léegi sëriñ si ñu wax lan moo nekk si alxuraan bi réellement lan la l'islam wax si la protection de l'environnement parce que ay waxtaan la yoo xam ne parfois du ñu si waxtaan si yeneen la ñuy waxtaan mais li ma lay laaj Gorr Guess en tant que Guess Today bu ñuy wax par exemple si communauté lan lan lan nga xalaat ne mooy responsabilité communauté bi naka lañu ñu mën a ñëwee si ay solution ba ku nekk si koñ bi nga nekk nga xalaat sa environnement au lieu que rek nga sangu ba set rek nettoyer sa kër ba mu set rek toog sa digg kër xam nga di enjoy air fresh xalaat ne mbedd mi suuf saa ngay salte ndox maa ngay bal mbalit yaa ngi nekk à xale yaa ngi nekk à côté di fontu yooyu yëpp ay effet négatif la si suñuy life wat wat lan mooy sa idea about loolu boobu façon thinking ci communauté yi Sénégal ok donc loolu bu mu bu mu ko waree aborder damay situer responsabilité yi ci mm-hmm. ñi xam ne ñoom ñoo nekk ci gouvernement bi mm-hmm. euh, mu law ci gouvernement locaux yi maanaam mm-hmm. communes yi euh, Sénégal dafa nekk euh, ci wàllu defar ay dëkkukaay je crois que foofu la jaxasoo bi commencé. mais yeneen affaire yoo xam ne naa ko évoqué. mais le problème moy dañu tam di bayyi ñu ñu sanc ci ay gox yo xamné ne préparé ñu gox yoyu pour que ñi ñu wax fa dëkk dëkk bu sel hmm. dëgg la damay euh, li fin hmm. euh, début 1980 bi Abdou Diouf di toog. Mm-hmm. Sénégal dafa nekkoon ci année de Bécor pendant dix ans. mu bokk mm-hmm. ak tous les pays du Sahel. Mm-hmm. alors année de Bécor yooyu toog nañu dix ans yoo xam ne dañu xéem ba nu ñu yaakaar ne day taw. ngelaw li ëff nuage donc pendant dix ans ndox waddul Sénégal. ah noonu ci yeneen gox yi. ay yooyu. mais mm-hmm. problème bi mooy si ñàkk euh, am ay gis-gis mm-hmm. ñu bari dañu jóge ci biir Sénégal jubal Dakar mm-hmm. temps ñu Dakar am na espace bu baree baree bari donc il c'était des actions euh, d'urgence yoo xam ne ñii dañu doon jóge ci intérieur Sénégal maanaam exode rural jubal Dakar même bu fekkente ne amuñu woon pexe waru woon nek ay sanc yo xam ne continuer mhm. bu ñuy taw yi commencé di ñëw gis nañu en tout cas euh, chaque année depuis lors ba fi mu taxaw di wax problème mu inondation loo xam ne lu tar la ci Sénégal te day gën a day gën a tar parce que fii nit ñi ba finalement nekk fa indéfiniment éternellement plutôt. Mhm. ñu ngi leen fa seen ressources. mais le problème problème en tout cas de prévention yi xam ne moom waroon lal bépp sanc amul foofu ba tax na dakaar euh, mu ngi ci ay problème d'habitat yoo xam ne il faut que ñu solutionné ko te solution boobu mu ngi jóge ci ñu ñu dessiner waat Dakar paj Dakar sax dañ ko lañuy ñuy def donc le problème de l'environnement

boo demee ay Pikine Guédiawaye et autres suuf si permettre na leen bu ñu génnee seen i kër lépp luy ndox tuur ñu koy tuur seen buntu kër bu paree xale yi foofu la ñuy fa la ñuy fooye donc ñàkk jël ay mesures yu jiitu bu nit ñi laa sanc loolu c'est des problèmes à solutionner au Sénégal mm-hmm. ba léegi fi may waxee en général fu ñuy sanc fu gouvernement bi nam def ay sanc souvent dañuy jóg rek commencé def ay chantier waroon li ko waroon mën a jiitu mooy ni ko gouvernement bi xalaate ñu oo euh, informer sénégalais yi ne leen lii ak lii la ñu namm def te déglu yi ñuy joxe ci seeni xalaat boole xalaat yooyu pour tàmbali li xam ne mooy chantier wu dëkkukaay moom la ñuy gis fii ci Amérique Amérique benn maire wala le gouvernement fédéral sañuy jóg jël benn projet mettre à exécution ci wàllu defar ay kër wala defar tali sans pour autant recueillir avis en tout cas population yi mhm. donc beneen problème bi mooy Sénégal bari na ay parti ku nekkaa ngi wuyu yaa xam N'y tudd euh, ñàkk aussi euh, yéewu ci wàllu environnement nous avons à pouvoir décisionnel par rapport la question environnementale les responsables politiques au niveau des partis war débat de am budget, présidentiel législatif moi communal on parle de tout sauf des questions environnementales donc nous avons une sénité dans le cadre démocratique waroon nañu mën a les populations waroon nañu gën a mën exigeante bu fekkante ne woon ne yeewu nañu question environnementale pour influer sur les prises de décision et les promesses même politiques parce que tout est lié là. kenn nous séparer en tout cas les problèmes environnementaux des autres préoccupations des populations. Mhm. dëgg voilà dëgg la loolu am na solo am na solo trop sama problème au niveau du Sénégal man mooy est-ce que ñun yi est-ce que le gouvernement sénégalais parce que Sénégal c'est quatre-vingt-quinze pour cent musulmans waaye est-ce que le gouvernement ay décision yi muy jël pour def quoi que ce soit au Sénégal si problème environnement est-ce que dina sukkandiku si l'islam li mu wax premièrement deuxièmement même su fekkente ne sukkandiku ñu si l'islam si li muy wax mais ku nekk xam na ne un sain environnement kooku dafa baax si dund nit même su fekkente ne yow liiruloo alxuraan bi même su fekkente ne sëriñ si waxuñu même su fekkente ne gouvernement bi defuñu lu ñu war a def est-ce que xalaatuloo ne naaw c'est le temps pour que les populations jël seeni responsabilité ku nekk a sa parce que ñoo ngi xaar par exemple un gouvernement pour mu ñëw defar mbedd yi gouvernement bi dëkkul si mbedd yi foofu ñu dëkk gouvernement bi dëkku fa ñun ñoo fa

Euh, il appartient à jullitu islam euh, ñu gën a ormal set gannaaw fulaal ñu setu wér yaram ci yaram ak setu kër war na mën a en tout cas euh, li islam recommandé ci wàllu set ay bénéfice yaa ngi wax xale yi am sécurité yaa ngi wax propre li ñuy wax set valeur set mm-hmm. yaa ngi wax taw bi bu baree tey ji lan la ñuy gis Sénégal actuellement ni inondation yu dul jeex fépp ay inondation la lan moo ko waral li nga jëkk wax ne migration bi amoon en 1960 waaye nga xam ne dafa tawul nit ñi jege ci kaw gi dem Dakar mm-hmm. mais ba ñuy dem Dakar gouvernement bi préparé wul pour que Dakar mën a accepter ñin ñooñu ci wéy bu gëna fin mhm. donc donc migration bobu mo andi problème yi ñu am tay Dakar parce que fu waay jot rek dëkk feebar yi nga xam mom lañu am aussi au niveau du Sénégal aussi loolu moko andi moy migration bu intense te amul préparation mhm. wa muy lo xamanteni c'est très grave c'est très dangereux ndax dina andi ay feebar xam nga dina dina problème mu mën andi sa dëkk sa dafa bari safety surtout safety pour xalé yi mhm. Sénégal bo démé tay ji playground amatu fa ay playground pour xale yi di font amatu fa mais loolu yëpp si environnement bi la bokk loolu yëpp lu ñu war a calculer avant nit ñi di jóge kaw ga di ñëw Dakar mais Dakar salte na Dakar xat nag Dakar bari na ay nit feebar yi bari nañu mais loolu lu jar a waxtaane la daal mu nekk show bu tey bi euh, ñoo ngi jël suñu pause dellu waat waxtaan ak Pape Gorgui si continuer si l'islam et la protection de l'environnement ñu jël pause pour une minute dellu siwaat ne euh, war nañu doglu suñuy sëriñ ñu ñuy digal te sëriñ si aussi seen devoir mooy lépp la nga xam ne nekk na si l'islam ñu gis ne méngoowul ah dund gi nit ñi di dund au niveau du Sénégal ñoom ñu jox ndax seen responsabilité la li wax rek dëkk pour mu dox ñun ñëpp ku nekk da nga am responsabilité gouvernement bi am na lu ko war from sa kaw ba si suuf boo nekkee si gouvernement bi am na lu la war si koñ bi nga bi nga bi nga nekk bi nga nekk sëriñ si nga xam ne ñoo fa nekk aussi ñin ñi topp leen am nañu lu leen war si Sénégal les corporations mais yu usines ya fa nekk ak corporation ya fa nekk di liggéey am nañu seen responsabilité Sénégal ñin ñi nga xam ne ñooy dox si suuf si nag ñoo ëpp responsabilité képp ku nekk Sénégal ndax ñoom ñoo fay dund lu gouvernement bi gisul sëriñ bi gisu ko nit ñi nekk si koñ bi ñoo koy gis donc responsabilité la pour fa ñoom ñu ñëw donc am euh, environnement loolu ñun ñëpp la concerné ñun ñëpp wax nañ si wax ñun ñëpp wax nañ si def li nga xam ne moo ñu war léegi Pape góor gi si problème mu sëriñ yooyu ñuy wax parce que islam bi comme li may wax rek ñu bari liiruñu ko ñu bari xamuñu ko. Mm-hmm. waxoon naa fi si sama euh, euh, show yële passé que ne lan moo tax ñun ñu nekk 95 pour cent muslim dëkk boo xam ne quatre pour cent musulman lañu te suñuy école amuñu sax euh, mën a jàng alxuraan si suñuy école muy première erreur ci Sénégal loolu moo tax ñun ñu nekk behind parce que suñu diine xamuñu ko soo nit ñi xamuñu lan la alxuraan bi wax sëriñ si waxuñu si am na si peut être ñu siy wax mais dafa mel ni du concern fi mu nekk nii leneen la ñuy wax mm-hmm. mais concerne waaw

muy feeñ ñun ci seen esthétique <coughs> la culture de la barbe muy feeñ ci mandarga yi xam ne mooy mosquée yi mooy minaare yi ah mooy conférence yi euh, ustaas yeeg limaan yi di def ci seeni i xutba euh, dafa dafa yaa dafa am décalage daal par rapport ak euh, li xam ne moom la gis ak li xam ne gisuñu ko te moo lal moo lal islam maanaam foofu la ñu war a gën a mettre l'accent et pour que loolu mën a am mooy que ñu gën a xam en tout cas lu lu nekk ci coran bi ci wàll woowu ak yeneen i fànn donc une compréhension de <laughs> du livre qui est le Coran s'impose à tout croyant islamique pour aller au-delà des cinq recommandations des obligations même je dirais des cinq obligations euh, du Coran la question de l'environnement donc islam tant que euh, euh, l'environnement n'est pas pris en charge et pour l'ONU, individualité comme Coran les responsables gouvernementaux si euh, c'était en 1987 euh, j'avais écrit une lettre de dix pages je me rappelle adressée à Abidouf. c'était le début de mes multiples correspondances yoo xam ne euh, échangé naa et à l'époque lu ma ko bind c'était par rapport à à Dakar ak ay solution yu ma ko pour désengorger Dakar mhm. désengorgement boobu peut-être ñu koy commencer gis ci wàllu transport mhm. mooy le pôle de Diamniadio malheureusement du sama xalaat rek Si euh, mhm. ñu situé le pôle de Diamniadio le pôle de euh, moderne urbain c'est warul woon nekk Diamniadio parce que c'est à deux portes de Dakar problème yi xam ne Sénégal jànkoonte na ko ba xalaat ay solution ba déboucher sur la création du pôle urbain ce pôle urbain sa place n'était pas à Diamniadio sa mhm. place devait être quelque part au Simsalou Saloum nous mhm. ñu Senghor avait un projet de pôle qu'il appelait euh, les terres neuves les terres mais mon constitution entre le Sinsaloum et le Sénégal oriental, Tambacounda, Kédougou. Mhm. Donc il y a une erreur de perception pour loger le pôle urbain au niveau de Djamnyadjo. Les travaux ont commencé, des milliards ont été engloutis, mais des problèmes vont surgir d'ici 20 ans ou 30 ans. Les mêmes problèmes qui ont poussé les autorités à vouloir trouver des solutions de désengorgement de Dakar. Donc, gis-gis lu am solo la dal dëkk bi leneen li bëgg souligner mooy euh, les quatre tarixa et l'église les quatre tarixa traditionnels du Sénégal mooy euh, euh, le Mouride le Touba je citerai les centres Touba tiwawan, Njaasaan ak Layen joxuñu leen seen gëdd bi bi bi bi war je veux dire ce sont des pôles qui ont depuis le début des temps il n'est pas trop tard pour corriger c'est des pôles pour les ériger en pôle économique Madame, aujourd'hui Tivaouane mm-hmm. Ndiassane euh, Touba ak Laayeen nañu mën autour de projets économiques d'envergure est complémentaire mm-hmm. Jusqu'à englober les questions euh, d'environnement. Mm-hmm. Je crois que la, stabilité sociale du Sénégal, faut Il n'est pas trop tard pour bien faire. Donc, il appartient aux, autorités du pays, désormais, mm-hmm. de voir même les mën projet d'envergure

Popengine est, par excellence le domaine euh, où l'Église s'est établie, en tout cas. foofu érigée en pôle économique et social pour euh, euh, l'Église catholique. donc mm-hmm. ces quatre pôles traditionnels plus l'Église ils ont un rôle à jouer dans le développement socio-économique et environnemental du Sénégal. waaw. Mm-hmm. dëgg la. loolu laa ci bëggoon yokk daal. dëgg la mu mel ni que nag ñun ñëpp suñuy responsabilité la raay. mu mel ni que everybody ñun ñëpp suñuy responsabilité ñëpp a ngi si biir. waaw parce que loolu nga xamante ni moom nga doon wax sànq lu ñuy wax si affaire gouvernement bi li ñuy wax si affaire euh, sëriñ si. Mm-hmm. même pour faire ne 95% de personnes la ñu catholiques yooyu nga xam ne 5% cinq pour Sénégal aussi seen responsabilité aussi mu ngi ci biir mu mel ni que dëkk bu ñu mu avancé 100% man boog ni ma gisee ni may xalaatee mooy parce que parfois dañuy euh, xaw a yaakaar lu bari ci côté islam bi bien que ne xam nga euh, musulmans dañu naan l'islam lan la wax l'islam lan la wax l'islam lan la wax mais parfois duñu jël duñu get message bobu parfois aussi gouvernement bi si boppam def ay erreur mooy li nga doon wax léegi rek yooyu yëpp ay erreur la parfois mm. placement projet yi dafay wrong placement projet yooyu nag mën na andi ay problème bu projet ba pare te yooyu yëpp ñoom duñu ko calculer allo allo allo allo ah, y a beaucoup d'interférences raa bi ah. am na ko si ligne bi raa bi moo bëgg def benn intervention Gorges yaa ngi dégg raay Mm-hmm. allo you yéen voilà donc dama def intervention bu ndaw ci affaire environnement propreté propreté euh, Sénégal. Mm-hmm. parce que pour au départ. Mm-hmm. man ni man au départ affaire bi dafa parce que. bo xolé Sénégal nga dugg ci cité par exemple nga dugg Jëppal wala nga dugg Castor euh, foo ci dugg rek boo xoolee kër yi mhm. dafa jege tali bi mhm. ba nga xamante ni bu ñu bëggee à dire dañu dañu mal calculé mhm. parce que boo xoolee kër yi dañu jegee tali yi nga xam dañoo doon bàyyi distance pour bu fekkee am nañu benn euh, euh, euh, am nañ dara lu ñu mën a yokk par exemple nii dinañ am espace pour yokk ko maanaam bu ñu bëggoon yokk tali yi dañu am espace bu ñu yokk tali yi ba pare en même temps am fu nit ñi di jaar mais dañu jël kër yi

soo soo soo soo jëlee benn benn benn euh, këyit nga def ci sa gerte boole kafe daal di ji daal di sànni. Mm-hmm. keneen ñoo naan ndox jël butéel bi sànni. Mm-hmm. keneen ñoo daal di naan jël benn plastique ndox daal di naan jël sànni. kee ñëw sànni benn bic. kee mm-hmm. génn sànni benn crayon ñe. mais bu fekkee ñëpp a ngi sànni ci biti te kenn ramassé wul. mais foofu kat du mën am. boo seetee

peut-être gouvernement bi xaar ci ñuy def lépp. Mhm. peut-être de responsabilité. Mhm. mais ñun aussi en tant que citoyen am de responsabilité moy nañuy fexé ba ñuy bañ ci bu ñu communauté yi rek ci koñu ndaw yi koñu ndaw yi. Mhm. def ay ay ay ay ay ay sa conscience damay fexe ba du sànni ci mbedd mm-hmm. self conscious mm-hmm. tu vois mm-hmm. donc bu kenn sànniwulee mbalit du am du fa am de mais bu fekkee ku nekk lu la neex nga sànni lu la neex Sénégal ku la lu la neex nga sànni ci mbedd donc dafa self discipline daf daf ñu war self discipline self discipline pour pour mu set satal communauté bi ci satal communauté bi ci satal

dëgg la moom parce que mooy li may wax rek nit ñi ñoo ëpp part de responsabilité ci problème bi. Mm-hmm. nit ñi ñoo si ëpp part de responsabilité mooy yow sa bopp nga discipliné ba nga xam ne. mais dem naa Sénégal je pense que man yow wax nañu si loolu dem naa Sénégal jënd fi samay bagage yóbbu si conteneur def si ay garbage can garbage can yu mag yooyu ñuy def si mbedd yi. Mm-hmm. fekk sama buntu kër pour que saa yu ñu amee trash def si biir parce que amoon nañu benn waaye boo xamante ne bii mooy ramasser mbedd yi. mais ndaw da ngay yeewu euh, affaire ba ñu jël ko mu dem ñu sàcc ko xam nga quelle la solution yow boo defee euh, si yoo mbalit si mbedd bi ñun ñu sàcc ko yóbbu ko soo discipline dafa baax si dëkk te Sénégal discipliné wu ñu discipliné wu ñu soo gorges foofu laa bëgg nga nga nga lan mooy sa sa si nit ñi si bopp ah ah lan moo leen war discipline bi ñu war a am aussi est-ce que du def changement bu bari si problème bi allo dégg yaa ngi may dégg. allo euh, bon euh, je regrette qu'il y a beaucoup d'interférences. mais sûrement on peut intervenir bi. ok hein? dégg nga question bi ma la posé léegi. waaw suivre naa si tuuti mais il y a beaucoup d'interférences quoi. il y a trop d'interférences. donc euh, le le retour là de dafay am ay écho si man. yeah problème mu technique la hein. yéen a ngi may que vous baax quoi mais il y a ah. beaucoup d'interférences. Mhm. Ok. Mhm. li ma doon laajte rek la population bi lan nga si xalaat aussi après loolu ñu wax yëpp parce que li ñu fi wax yëpp ay erreur la erreur gouvernement erreur xam nga ñàkk spread li nga ah, xam ne moo nekk si je voulais encore mettre l'accent c'est-à-dire euh, c'est une chose de nous débarrasser des, des ordures euh, et des déchets de tout ce qui est en tout cas euh, un frein à, l'acheminement même, quoi. Donc, mhm. c'est des produits, c'est des produits, euh, des produits euh, finaux. Problème de moi, le encore, pour pouvoir prendre en charge la question de l'environnement, mhm. les équipements. Équipements, tracé mhm. en tout cas de waaw xam ne amul amul si si culture développement euh, pardon dëgg la waaw mooy li ñu middle koy concevoir moo jur euh, euh, moo yi xam ne les gens se croient en droit de tout faire dans le cadre négatif. Parce que mhm. le cadre physique, ça influe sur le, les comportements. Aujourd'hui, mhm. la plupart des quartiers de, la banlieue, mhm. l'insécurité, la nuit tombée. Parce que, ni faute de, de bien tracer d'abord le cadre où les gens vont habiter dans le futur donc il appartient aux autorités de mettre l'accent sur la conception future même des habitants. Mm-hmm. de sorte que nous mm-hmm. y des un problème sécurité. à nuit tombée il n'y a pas suffisamment d'éclairage donc l'eau, problème environnemental. environnement environnemental, mhm. il n'y a pas il n'y a pas d'équipement approprié qui n'ont pas été conçus euh, pour mettre en place en tout cas ces ces, quartiers. de mhm. la banlieue. Donc toutes sortes de formes d'insécurité sont liées à la malconception même des cadres de vie. Mhm. parce que les petits cadres de vie bi par rapport à ce que l'on voit en solide comme déchet, il n'y a même pas de, de voie de dégagement pour que même ils n'ont pas été conçus dans le cadre de l'élaboration même de, des cadres de vie. que mm-hmm. le problème là. de sérieusement ah, parce que c'est jii pour solution contribuer, continuer de contribuer à, à, l'insalubrité, ces comportements sont plus, de plus en plus guidés par le, le matin, si j'ose dire, puis au fait qu'on ne sent pas, en tout cas, la prise en charge d'un équipement des cadres de vie mm-hmm. au niveau des banlieues et à travers le Sénégal. Mm-hmm. Il n'y a pas mm-hmm. une politique d'urbanisation qui appelle les autorités à concevoir et à étaler sur le futur les équipements appropriés, appropriés liés même à la prise en charge des questions de l'environnement. Parce que, mhm. c'est bien tracé. ak gox il y a un benn design euh, urbanistique Puis, à ci c'est bien tracé xam na fa muy teg mbalitam mhm. xam na comportement yi koy guider pour contribuer à l'état de salubrité par mhm. rapport à ce qui ne mu ngi dëkk ci ay mhm. l'exception la propreté donc tout ce qui la préoccupe ces personnes mooy à se débarrasser des déchets de la maison Pour mu ko mën ci teg ci biti c'est pas son problème l'essentiel le donc la plus grande part de responsabilité appartient euh, aux autorités qui doivent euh, concevoir les cadres de vie. On ne doit plus laisser les gens alors s'établir de manière spontanée. Mm-hmm. occupant appelant ou non occupant, jusqu'à ce que les gens grandissent, les maisons grandissent à partir des tôles, des baraques, pour devenir des maisons en dur. Parce que l'on l'a dit au niveau de, du Sénégal depuis que les gens ont, si j'ose dire, exodé de l'intérieur. Nous pour une calamité naturelle, commençant par le précaire, mais du jour au lendemain, on a vu des maisons à étage. Mhm. tout, simplement parce que c'était des clientèles politiques aussi. Mhm. Mhm. Donc, il faut que les, les, Sénégalais, les, citoyens sénégalais, soient beaucoup plus exigeants à l'égard de ceux qui demandent leur voix électorale. La question de l'environnement, à défaut d'un parti ou de partis dignes de ce nom, euh, œuvrant dans le cadre de la gestion de l'environnement et faisant de cela leur credo, les populations doivent être euh, informées pour que nous exigeons au niveau même de ceux qui demandent leur voix euh, lors des élections. La question de l'environnement doit décider les élections au, Sénégal, parce que nous nous connaissons. Ah. dëgg parce que bon problème euh, euh, euh, vote pour que nous ñi avoir a environnement mais ah, je ne me souviens pas de suñu politiciens yi boolee sujet bi si une campagne du ma faral di dafa melni sax ñom dañ ci xawa innocent intéressé wu non non pas du tout pas du tout. intéressé wu parce que taxaw ne suñu ma defar yi hmm. yi ni il faut ñu mais langage de politique donc mu ni ñi nga su fekkente ne dëkk bi te ñoom seen mentalité environnement il pas mais est ce que loolu solution dina gaaw a am euh, ok baal frère, fa de dama wax client j'étais obligé de le laisser entrer allo problème problème bi mooy bu tabax nañu tabax yi comme li nga wax nañ ko ba nga ne yi kër yi place mais nit du am audace su génn di sànni mbalit si biti loolu rek daf leen di éduquer. Uh-huh. moo tax man mooy personne place bi ma bi ma jëkkee ibbee mooy sa relation ak place bi. parce que bu fekkente ne kër yi dafa jaxasoo mbedd yi jaxasoo ku jox sànni mais da am audace su dem sànni mais États-Unis gii boo si sànni benn këyit parce que tout est organisé yow soo sànnee këyit gi sax di nga ko jëlaat si suuf sa sa sa sa naturel kii du la ko may te loolu ñun am nañu ko mais su fekkente ne boo génn gis ñëpp di sànni da ngay sànni. Euh, absolument. et puis je ne sais pas si on n'est pas en coca parce que réseau bi ont déconné beneen euh, l'éducation civique. Mhm. l'éducation civique a quitté les, établissements scolaires depuis longtemps. Depuis mhm. longtemps. Il y a une génération d'élèves, quand l'éducation civique était une matière incontournable, euh, mhm. qui ont grandi et, dans le réflexe de prise en charge de l'environnement, euh, ils, sont différents. Cette génération, elle, est différente de, beaucoup de générations qui n'ont pas embrassé, l'éducation civique à l'école. c'est un fait. Il faut que l'éducation civique retourne en force mm. dans les programmes scolaires, mm-hmm. secondaires et universitaires. Mm-hmm. Il faut que l'on le Mhm. Donc, euh, euh, on peut pas. Euh, c'est-à-dire euh, pour régler le problème de l'environnement, nous nous mhm. rek mhm. aussi deux jours après des parce qu'il y a des problèmes des, contraintes techniques qui n'ont pas été prises en charge par en tout cas les autorités les maires les maires surtout les maires parce que mm. Sénégal c'est le forum aujourd'hui on ne doit même plus trop attendre du gouvernement central il appartient aux maires aux collectivités locales en tout cas mm-hmm. de s'inscrire dans le cadre de l'amélioration des localités yi ne am nga région di on oublie même la Maison Blanche par rapport à beaucoup de questions donc am na gis-gis il faut nous changer pour que tout ce que l'on voit autour de nous l'insalubrité éternelle soit war pour moi il faut que les citoyens soient plus exigeants vis-à-vis de ce qui demande leur voix électoralement parlant pour l'homme, il faut que les débats s'instaurent à travers les mosquées à travers les grandes mosquées ni ramener... ni did solo torop am na solo te boo xoolee ñun Sénégal li ñu gën a mën a dimbali sax mooy nit ñi dañuy dëglu sëriñ si tey ji bu sëriñ joxee ndigal ñu dañ koy def donc mu mel sëriñ si bu ñu jogoon tey ji def benn programme di wax si affaire euh, salubrité di wax si affaire environnement mais da ngay gis ñu daal di attirer attention wu nit ñi si loolu moo moo tax ma ne nekk na dëkk boo xam ne bariwuñu mais nit ñi déggal nañu sëriñ si mais léegi nag euh, part de responsabilité bi nga xam ne sëriñ si am nañ ko mooy yee nit ñi ci affaire salte bi nekk Sénégal parce que mu ngi andi ay feebar moo ngi rey nit ñi tañu ñu bari duñu ko xam parce que am na feebar yu lay dugg par exemple yooyu yi nga xam ne ñoo ngi jëm nit ñi boo jamee benn nit dem ci beneen nit dem ci beneen nit dem ci beneen nit mais kooku ay day spread ay feebar te yooyu yëpp ay affaire la yoo xam ne ñun ñu duñu ci rendre compte Vi mm-hmm. nou fwant kene salte bo bo, sahye si mas sebe, me dangay jem Senegal, ben nan mas sebo hamne, dangay dido sa sahye, dido sahye tope la. Men, menm sou fek ente ne sirin wakou, menm sou fek yo gouvernema wakou, men nit, nit si bok amre, kou anda helam. Men, amne yon hamne, amne yon hamne. Fwant nan yon refleks, si nit kou hamne eljoui de tout se fakulte. Fwant nan yon refleks. Fwant. comportement mhm. environnemental dafa war réflexe. <laughs> dans beaucoup de pays cigarette ci mbedd bi. il faut il faut refaire. il faut mhm. refaire les comportements. Mhm. individuellement et collectivement. pour il faut aussi que les ñi li ñuy uyu ñu mm-hmm. xamee euh, la pratique islamique yemul si julli yemul si nattu mbirum koor yemul si mm-hmm. woor yemul ci dem ñu tudd euh, pèlerinage à la la. yemul autour de ces cinq piliers la pratique islamique dafa war a dafa war a romb loolu daal. dëgg la du loolu rek. jullit jullit ñu mën ko gis ci ay jëfam ñu mën ko gis ci ay waxam. dinañ mhm. ko gis ci ay responsabilité aussi. parce que bu la bu la dénk nii te li ñu la dénk gérer la ko ni ñu ko war a gérer te ni muy mën a a mhm. beaucoup de choses à revoir waaw. Mhm. bu fekkente ne da ngay campagne aussi nit conscience de des questions environnementales nga ne leen nga promettre leen tu vas en charge. nga fal la.

se cha ling pa leg am no sala tra gorges lingnga waxne lilamjamu y la y mo rekksijunligi na to muum kò bièm maka gi ja mo ya la da oppulolu da dafa rey dawa bari ay atèjun euh, nè sibir siu digante un si sinyu bir an tan ka dom adamu seu digante siyu relasyon yow ah, ah, ah, sa relation ak ak environnement boobu loolu yëpp si jaamu yàlla bokk suñu relation ak mala yi mala yi sax loolu yëpp si jaamu yàlla bokk boo demee tey Sénégal mala dañu koy toraxal o ngi xool barka dem ba si Facebook bi rek benn waay buy xeex ak mbaamam yow nooy xeexe ak mbaam li may bañ a fàtte évoqué rek mooy c'est très important euh, le Coran est un livre saint mhm. euh, le Coran est mode d'emploi moo ko fàtte woon ba émission bi jiyee peut émission bi dina dina ñu am benn faille quoi mode d'emploi la mode d'emploi c'est-à-dire boo ko jàngee mhm. xam ko euh, dafa lay jox ay yoon yooyu topp ci fànn yëpp pour être musulman accompli waaw mhm. boo fàttee ci yoon yi mu édicté va euh, nous ci environnement au niveau individuel comme collectif. Mm-hmm. il y aura des failles. parce que environnement dina dem de euh, en charge de retourner façonner les comportements négativement. et ces comportements façonnés négativement risquent même de mettre en cause ta croyance religieuse. cest la ak ah, sa jaamu yàlla mm-hmm. comportements vous fenn lu ci cadre de vie c'est invivable foofu la judo. Mhm. quand la quand quand la nuit tombe il n'y a pas d'éclairage Il y a yeneen mhm. facteurs euh, environnementaux qui grèvent, tous les chats mhm. sont gris waaw dëgg on peut pas te juger dans le noir on peut pas te juger dans le noir c'est dans dans le clair que tu montres ton ton pensant islamique. Ah. Donc, mhm. euh, les comportements sont façonnés en fonction des cadres de vie non pris en charge. Et mhm. tout revient au, autour de la question de l'environnement. Ah. Mhm. question mbalit rek valide romb mbalit comportement yi mais mbalit moomu dafa àndul sax ah jaamu yalla julli gi ngay wax ne sax yow moom. pas du tout pas du tout. dafa àndul yow déjà sa xel rek euh, en tant que. ndax yàlla la pratique coranique la pratique islamique est remise en cause. c'est que la pratique est, est remise en cause. Donc, il nous appartient de davantage comprendre les messages du Coran, Mohamed Sifan mais question mhm. environnementale, lii tout ce qui est tout ce qui sont téléphones, nous nous les parties en tout cas centrales les versets autres là chapitres qui traitent de l'environnement dans le Coran Nous devons éduquer les populations Il mhm. y a un cadre parce que nous, nous croyance tellement nous, te leader yi li ñu wax seeni seeni talibé bëgg ko roy mais mhm. pourquoi pas alors euh, exploiter le cadre du Coran qui traite de l'environnement ah pour que nit ñi war a mën a gën a ragal yàlla parce que boo boo boo jëlulee en charge environnement bi te Coran bi nee na la lii ak lii boo ko deful en tout cas sa ngëm des na ku bëgg sa ngëm nekk euh, à l'arrivée nekk euh, une moyenne de vingt vingt sur vingt

mais loolu xoolal insalubrité boobu. Mm-hmm. Mm-hmm. xoolal boobu pour commencer. Mm-hmm. léegi nag nit nag ñëw nag di sotti nag mbalit nag ci biir canal yi. allahu akbar. tu vois donc donc yooyu yëpp bi ne dafa dellu ci cadre euh, environnement. il faut il faut ñu adresser ko. il faut ñu adresser il faut suñu gouvernement bi ko comme ni ko sa invité bi waxee il faut suñu suñu suñu suñu maire yi. xam nga la wa maire yi collectivité locale il faut nous nous... ñu il faut nous... nous responsable population parce que salté trop c'est trop c'est trop mais bi sax salté bi sax dafa salté dafa poussière. ko ko dafa laaj rek organisation. Mhm. organisation rek la il faut commencer ci kaw Mm-hmm. gouvernement bi jël seen part population bi jël seen part su ko defee bu ñëpp àndandoowee dañu am dañu am dañu am Sénégal bu set. la parce que nag amu yàlla. laaj mm-hmm. set. Mm-hmm. yàlla suñu borom bi lépp ma set. lépp ma set lépp ma sell. donc suñu bëggee jaamu yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg. il faut ñu adresser environnement au Sénégal. il faut ñëpp jàpp ci. il faut ñëpp jàpp ci ci kaw bi ci suuf nag laa bi ne te nag ak bu agressif la war a doon sànq euh, jëf Fra bi si intervention boobu am na solo trop il faut ñëpp jàpp si agressivement sànq góor gees wax na lu am solo parce que boo xoolee ñu ba ñuy dem jàngi ay primaire éducation civique dafa nekkoon si école yi da ngay bëgg sa dëkk da ngay xoolal ñun dañu daan bale mbedd yi waaye je pense que loolu ñu bëri ñu ngi koy fàttaliku xale yu jigéen dañ naa nekk si mbedd yi di bale mais loolu yëpp éducation civique parce que ñu jàngal suñu dëkk ñu bëgg suñu dëkk bëgg suñuy héros mais tey ji ba ñu génnee éducation civique ci école yi ci la xale yi commencé di dem di xooli laneen lu nekk ci biti amatu xamatuñu valeur bi nekk ci biir xamatuñu ko donc lii responsabilité comme li ñu wax gouvernement liggéeyu gouvernement nag nit ñi mënuñu ko def c'est dommage xam nga liggéeyu sëriñ bi tamit nit ki mënu ko def en tant que sëriñ dafa am lu la war ci say xam nga donc mu melni ni que seen responsabilité ñom ñun aussi une responsabilité donc il faut ñu réveiller conscience surtout sur niveau de l'environnement. parce que quelqu'un ne ñi jité aussi ñom xamuñu affaire environnement mais duñu nous participer ci environnement je ne pense pas amna kuy essayé woote ci ligne bi mais man mënuma ko jël euh, Gorges bo fekkee da nga bëgg intervenir nga dugga man euh, je crois que euh, li gën a am solo daal. Mhm. Euh, émission bi li ma entendre ak thème bi. Mhm. mooy mhm. Euh, tant que mettre nous l'accent sur les actions de prévention. On dépensera, on prétendra dépenser des milliards parce que lépp lu ñu bëgg en général nous devons dégg ne ay milliards ko te bu ma euh, un exemple bu une saison de pluie ni ni en tout cas faj inondation donc politique de prévention moo war a que produit euh, politique de de de comment de guérison quoi le mot m'échappe un peu donc il y a la prévention et le curatif moi <laughs> ça doit demander des moyens

te une ay mesures radicales toj Dakar le ñu ko war a toj foofu la ñu nekk nekk toutes les grandes villes ce qu'on appelle les capitales régionales à part Dakar du Dakar rek mhm. la fa war mooy fi si ça demande milliards nous ñu teg le cadre de ces capitales régionales mhm. parce que boo tojee aussi dans le cadre de chômage

dès qui les comportements. Mais tant qu'on évolue dans des ces de quartier, comme on dit, ou, ou où il n'y a pas le minimum équipemental, euh, mm -hmm. de plus de bëgg ci des milliards mais du dem mhm. la pauvreté va s'installer de plus en plus du point de vue pauvreté économique comme du point de vue euh, sanitaire ou autre plus

Donc, il faut inverser dans les, actions, les visions et autres. Voilà. le En gros, dans le, euh, parce que euh, dafa cadre de réflexion

cleaning people? Rabbi am out on the license plate. Hello? I was in the middle of a radio. Ah, uh, bidama. Hello. We might have those maybe. Uh... Allô? alors Rabi, Wow da nga bëgg a donc donc donc bi nga xam émission tu vois donc euh, donc fait waat comme comme ce premier ce premier show réveil des consciences xam nga bu ñu bëggee bu commencer suñu population bi am ben am am am population bi yeewu xamni ñom ñoom euh, Sénégal ñun ñoko mom moom. Mhm. ñun ñoko mom du gouvernement bi moko mom mais ñun ñom mom suñu Sénégal. Mhm. donc bu ñu jógee def li ñu wara def daanaka sax mën nañu kon éduquer éduquer éduquer gouvernement bi. Mhm. donc nañu delluwaat xoolaat suñu bopp xool nag la ñu comporté woo. xool nag moo ñu war ñu def ko. li ñu def ci biir kër yi ñu fexe aussi ñu génn ko ci biti ci problème environnement fexe ba dañuy setale suñu kër yi ñu setale ko suñu mbedd yi bu mhm. ñu setalee one community at a time bu yàggee Sénégal dina set dëgg la bu yàggee Sénégal dina set mais bëgguñu bàyyi legacy suñu doom yi lii bëgguñu bàyyi suñu doom yi legacy bu mel nii mhm. Sénégal bu salte foo jaar salte foo jaar mi ngi xeeñ foo jaar weñ yaa ngi dox yoo yaa ngi dox yëpp àndandoo donc il faut ñu jéem xool

waxtaan bi am na solo so ñoo ngi conclure um, Pape Gorgui eh, ñoo ngi dem si conclusion show bi parce que ñoo ngi dem si end bi lan mooy sa last mot pour pour les auditeurs. ok maa ngi jégalu parce que euh, le le facteur technique n'est pas là euh, par rapport à euh, interférence yi quoi. maa ngi uh-huh. parfois je sens pas que maa ngi en en ligne avec ce qu'on devait devait dire ñu koy dégg bu baax li ngay wax yëpp ñu ngi lay dégg. waaw retour de la dul am quoi. les les mhm. débats là je je suivais pas ça bien quoi. moo tax ma ma perdre le le fil donc dans euh, ci ni ma ko waxoon ci njëlbeen bi mooy émission bi prétexte la rek pour que autour du terme islam et protection de l'environnement. Mhm. Euh, ñu gën a revisiter à travers les personnes. Euh, nous euh, xam ne islam mhm. visiter le Coran tout ce qui est chapitre et verset tournant autour de l'environnement que nous gën à travers le Coran pour que la prise en charge au niveau individuel de l'environnement soit des réflexes Pour war nañu dépasser le cadre de la conscientisation pour que mu nekk réflexe si nit ku nekk kuy en tout cas du parce que le Coran est complet bàyyiwul dara jusqu'à la question de de l'environnement donc euh, il appartient aux, leaders religieux ñu gën a axer leur serment ci question environnement autour des des mosquées que nous avons ni am d'antenne ci télé islam et comportement Nous avons en charge en tout cas les questions relatives à la prise en charge de l'environnement Nous bi euh, nos dirigeants politiques nous avons les pouvoirs décisionnels au niveau de l'État et des démembrements de l'État les communes je veux dire que dara mënul améliorer wu si la question ou les questions de l'environnement lalul seeni décision mm-hmm. loo bëgg def boo ne lii laay def mm-hmm. mm. les citoyens les simples citoyens avertis dañu lay confronter par rapport rek li nga bëgg a lan la mën a gàllankoore avec suñu habitat mm-hmm. l'environnement ko en quelque sorte donc mënuloo ne yaa ngi xalaat def lu baax te jëlulee en charge ci conception li ngay def la mhm. question ou les questions de de l'environnement waaw mhm. depuis depuis toujours plan jaxaay jàll na fi yeneen i plan jàll na fi avant Abdoulaye Wade mais problème inondation yaa ngi nii day gën a tax parce que fi ñu ñi nekk du ay ay ay goxu dëkkukaay les meilleures solutions ak lu mu guerre, tu vois le milliard Moins que les gens de guerre mhm. bu may wax loolu aussi euh, il faut me brosser ko ça concerne Bargny il y a une semaine à peine deux quartiers se sont livrés la guerre uniquement à conséquence yi mu jur. du mhm. rek ne euh, dañu farlu ci seen ASC c'est un problème de cadre physique. Mhm. il y en a depuis toujours ces deux quartiers sont les plus populaires de Paris. Aujourd'hui, chaque habitant dans ce quartier-là n'a même pas un centimètre carré d'évolution. Wow. Donc forcément, cette jeune génération, ces jeunes qui sont acteurs de telles violences, ils ne sont que des victimes d'un environnement malsain. Donc, ce sont les cadres de vie qui déteignent sur les comportements. Espace vital, il faut Les jeunes, des fonds magiques, Vous tous ces jeunes-là auront des comportements adverses, euh, contraires à ce que euh, on voudrait qu'ils soient, ces jeunes. Donc, moi, euh, je dirais sans citer le cas douloureux de ces deux quartiers, mhm. le long de la mer waaw. donc jërëjëf donc loolu daal di leen ma ma leen gërëm encore une fois. et ce cette émission et ce thème maa ngi ñaan yàlla daal mu mu gën a mën à partir d'aujourd'hui nan la ñuy mën a jokkoo jokkaatle même suñu kër. avec eh, des animateurs eh, religieux au niveau des radios et télévisions du Sénégal pour mhm. que mu am ñu les bases entre sunu kër et ces ces médias entre sunu kër et les simples euh, citoyens par le le canal des médias sociaux en tout cas pour mën euh, gën a jox gëdd daal aux questions de l'environnement amna na solo jërëjëf Pape Gorgui ah. si euh, invitation bu tey bi xam nga waxtaan bu am solo la waxtaan boo xam ne mënul nekk benn show rek incha allah dinañ defar yeneeni show parce que li dafa nekk euh, benn topic bu ba nga xam ne dafa rëy topic bi li ñu mën a wax ci dafa bari yaa ngi wax affaire u islam yaa ngi wax affaire u euh, euh, gouvernement bi yaa ngi wax affaire u nit ñi seen bopp seen responsabilité bu paree ngay wax conséquence yëpp yu mën a jur donc show bi mënul nekk benn show incha allah dinañ dellu siwaat may aussi baalu ak auditeurs yi si problème technique technique yi ñu am tey nga xam ne dégg-dégg bi xawoon na jafe tuuti incha allah du ñu gën a dem rek aussi gën a améliorer du si ñàkk ñoo ngi leen di remercier si déglu bi bi ngeen ñu déglu di ñaan yàlla aussi ñu xaw a utiliser suñu mind comme li ñuy wax chaque jour rek dëkk du avancer nit ña fa dëkk ñooy avancer pour dëkk bi mën a avancer. le réveil des consciences awareness mooy ñu xam ne lii jaaduwul ñu jog si ñun ñëpp taxawandoo si ñun ñëpp euh, fexe ba problème boobu ñu régler ko gouvernement bi li mu mën a liggéey si Sénégal nit ña fa dëkk mën nañ ko bañ a liggéey donc gouvernement bi part de responsabilité am dafa war a taxaw bu fekkee dañ la fal nga taxaw di wax di wax ba nit ñi fal la dafa am lu tax ñu fal la nit ñi nañu bàyyi seen intérêt personnel yi ñu nekkee loolu moo andi conséquence yi nga xam ne moom la ñu am tey Sénégal mooy kër yu xat yi nit ñi dëkk mooy dëkkoo yu xat yi ngi di andi ay feebar mooy taw yi nga xam ne inondation lay andi si dëkk bi loolu yépp ay am ay ay ay leader yoo xam ne amuñu vision moo koy andi Sénégal nag suñu Sénégal la ñun ñëpp ñoo ko bokk bu lu metti amee dañu siy wax bu ñu amee lu ñu naxari aussi dañu siy wax mais lépp du pour euh, di tontu nit mbaa di agressé nit mais da ngay andi solution lii yëpp ay solution la ñi nga xam ne ñoo nekk euh, si kaw nañu xam ne nit ñi ñoo leen fa teg we are here to serve kenn nekk fa pour sa bopp da nga ñëw pour dimbali nii da nga ñëw yàlla jox la opportunité pour nga jàppale doomu aadama yi nañu dimbali ngir yàlla doomu aadama yi ah defar dëkk yi mu gën a baax xaalis bi nekk Sénégal bu desoon Sénégal du ñu am yi problème xaalis bi ñuy génn di ko yóbbu si biti di si def ay affaires yoo xam ne ñeneen lay amal njariñ nañ ko bàyyi si biir Sénégal dimbali population yi Sénégal environnement dafa am solo ñi nga xam ne ñooy les dirigeants islamiques am nañ si respon part de responsabilité parce que dañu am ay dañu am ay ay taalibe yu leen topp te taalibe yi en général lu sëriñ bi wax ñu def ko bon nag sëriñ si nañu wax si problème environnement bi parce que mu ngi gën a andi ay population yi la même chose koñ bi nga dëkk gouvernement bi di ñëw di la ko defalal lépp dafay commencé si yow nañ leen ànd en groupe jënd suñuy peel dem si organisation yi ñu dimbali ñu ñi am xaalis dugal seen xaalis Sénégal du defaru tànk ñun joguñu booloo ñi mën a wax wax ñi mën a jog jog ñi mën a dugal seen xaalis dugal seen xaalis ñu defar suñu dëkk ñëpp nekk ci jàmm loolu mooy woon tey waxtaanu tey bi waxtaan bu am solo la di ñaan yàlla suñ borom bi yàlla nañu dimbali ñu mën a dellu def ay yeneen émission yu yu mel ni yu am solo remercier pape Gor gi mi nga xam ne mooy guest spécial tey di remercier aussi madame samboura bieti ndaw si euh, participation bi euh, di leen di leen gërëm yéen ñëpp xam nga gërëm njawar ñoo ngi remercier si production bi thank you so much képp fépp fu ngeen mënti nekk rek yàlla yàlla jàppale leen sutural leen may ñaan képp ku dëglu vidéo bi na nga ko partager nit ñi nañu commencé au niveau du sénégal di groupe bokk ci communauté yi di xool lan mooy doxal communauté yi ñu commencé di ko def ça commence par un bala mu yegg faneen maire yi nekk ci koñ ñu dugg ci biir def seen devoir ñun ñëpp am na lu ñu war Sénégal na ku nekk jog def li nga xam ne mooy sa devoir yal na nu yàlla jàppale defal ñu jàmm defal ko jullit yëpp sàmm suñu njaboot jërë ngeen jëf ba maax di bi di ñëw incha allah thank you se ניקח לה. tax ba ñëpp di waxtaan Sénégal